baalu àqu ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan suñu borom yàlla may ñu weeru kooru jàmm may ñu aussi sutura ak xéewal ginnaaw bu ñu leen nuyoo tamit ñu ngi nuyu suñu mbokk yi fi teew tey suñu naataango yi eh, di wax ne nag tey ñun ñoo woote woon bis bi tey bis bi woote bi li ko waral mooy dañoo jub ci élection présidentielle élection présidentielle nag buñ ko buñ ci jubee wax wàllum politique ñu bokk nag ci langu politique yi yor parti politique bu ñuy wax MPES jëf ak njariñ di mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal di parti boo xam ne am na récépissé depuis 2020 boobaak léegi ñu nekk ci suñu yoon di liggéey lu yaatal suñu parti ak lu ko dëgëral euh, MPES jëf ak njariñ nag njiit li bu ñu doon tàmbali tey di wax parcours bitim réew la nekkoon fa la yeggaleem njàngam ba liggéey fa ci administration espagnole ba 2012 la ñibbi si Sénégal investir fii ci Diourbel euh, dugg ci wàllum politique bi à partir de 2014 nekk candidat mairie bokk ci élection yi député 2017 bokk ci présidentielle 2019 bokk ci élection 2022 ba tey jii ñu jëm 2024 ñu war a bokkaat ci élection yi. kon bu ñu doon résumer suñu parcours dañuy wax ne def def nañ fukki at politique en Espagne def fukki at politique ci Sénégal loolu jox ñu ñaar fukki at yoo xam ne mun nañ wax ne ah lu ñuy doon doon gone am nañ expérience am nañ jaar-jaar am nañ vécu ci wàllum ci wàllum politique. histoire politique bi nag bu ñu ko doon résumer mun nañu wax ne à partir de 2000. 2014 bi ñu nekkee candidat maire yi jël nañ troisième yàlla jox ñu ñaari conseiller ci commune bi ak benn ci département bi biñ ñëwee élection 2017 doonuñu woon candidat mais jàppale woon nañ candidat Ousmane Sonko mu am benn député ci plus rest reste kon na loolu war na mën a tax ne wane ne ba ñu xamante ak Ousmane Sonko ak am ak moom relation yàgg na ginnaaw bi loolu ci la ñu ñëw ñu jiite coalition Idy 2019 fii ci Diourbel am 36 pour cent jël deuxième loolu tamit bokk ci li nga xam ne moo di suñu suñu parcours politique. Euh, ñu ñëw nag ci contexte Sénégal 2021 bi nga xamante ne bii falaat nañ président Macky Sall ci deuxième mandat et dernier mandat deuxième et dernier mandat. Euh, mën nañu wax ne depuis 2020 Sénégal nekkul ci jàmm. nekkul ci jàmm mooy 2020 la coronavirus commencé ñu nekk ci jafe-jafe yu rëy ñu ñëw 2021 ay coow commencé juddu ci tension politique ci réew mi coow yooyu moo continuer 2022 2023 ba 2024 bi ñu nekk nii tey ba ñuy wax am na plus de 80 morts ak presque 2000 blessés ci réew mi ci diggante ñetti at loolu nag ñu nekk ci contexte boo xam ne contexte bu jafe la woon contexte bu metti la woon ñii fi nekk tey yore nguur gi ñu gis ne dañ fi nekkoon di bunduxataal ay homme politique di teg ay daan homme politique di leen teg ay jafe-jafe accuser fi ay nit jàpp fi ay nit jiiñ fi ay nit terroriste jiiñ fi ay nit criminel lu nekk ñu jiiñ ko askan bi jàpp fi presque lu jege mille cinq cent personnes loolu nag constat bi ñu ci def ñun ñëpp mooy fan yii paase ñu woote benn loi amnistie daan na ñooñu nga xam ne ñoom lañ jiiñoon terrorisme ñooñu nga xam ne ñoom lañ jiñoon yàkkataan ay xale ñooñu nga xam ne ñoom la ñu jiiñoon euh, euh, teg ay bomb ay cocktail molotov ak ay ay ñoo xam ne def defkatu ñaawteef la ñooñu ñëpp ñu vote loi assemblée nationale ne effacé nañ loolu xewoon ci jafe-jafe yooyu yëpp. loolu am na jàngat bu ñuy jox ñun en tant que acteur politique en tant que ñun ñi nga xam ne nekkoon nañ ci opposition bi di xaw a xel ñaar waa lii ñuy wax ñii ndax dëgg la am du dëgg ñu dem a dem a dem ba ñoom ñi nga xam ne ñoo leen taxaloon dajale député yi voté à l'Assemblée nationale daan ne leen yéen ñii ñu waxoon ne yéen a def lii kat effacé nañ li fi xewoon 2021 ba 2024 kon defu leen dara loolu en tant que ñun acteur politique daf ñuy jox benn réflexion kon dañ nekkoon dañu doon manipuler kon gouvernement du Sénégal euh, ñi nga xamante ne bii ñooy régime bi dañ doon manipuler askan bi di manipuler certaines oppositions di leen gëm loolu loo xam ne ndekete en réalité c'était pas vrai donc loolu bokk na ci li nga xam ne tax na képp kuy acteur politique war nga ko décrier war nga ko war nga ko dénoncer te man dama koy dama koy dénoncer. beneen bi ci topp mooy gestion wu dëkk bi gestion wu réew mi ku ci nekk xam na ne 2021 ak léegi 2019 bi Macky Sall jëlee nguur gi ak léegi li nga xam ne moom lañ ci constaté ci ay njaaxum ci wàllu corruption li nga xam ne moo di wàllu Cour des comptes IGE OFNAC ay dossier ña nga fa di nelaw ci tiroir yi ci ñoo xam ne dañ leen a épinglé ñu war loon leen a teg ci yoon te teguñu leen ci yoon wala njiitu réew mi ci boppam wax ne problème yooyu yëpp ak jafe-jafe yooyu jël naa sama conc ma teg ko ci loolu aussi ñun en tant que acteur politique dafa ñuy tax ñu réfléchir ñu ne kon ñii jiite réew mi bu fekkente ne bii ñi ngi njublang di luubal alali askan bi ñi nga xam ne ñooy kuréel yi saytu alalu askan bi fu mu nekk di OFNAC di IGE di Cour des comptes épingle fi ay nit ñu jël loolu lépp ñu dëxañ ko denc ko ndax ci su suñu camp la bokk loolu aussi tax na ñu jóg ñun aussi nee war nañu décrier lu mel nii wax nañu dénoncer lu mel nii beneen bi ci topp mooy arrogance bi arrogance bi mooy dañ lay fal ministre wala ñu fal le directeur nga def sa bopp daanaka yàlla wala nga def sa bopp daanaka yow un malaka matul juróom benn weer nga tabax immeuble tabaxi étage di pasar pasare alalu réew mi alors que yow juróom benn weer ci ginnaaw wala at ci ginnaaw yoroo woon dara loolu aussi askan bi bu buñ ko gisee il faut ñu taxaw ñu dénoncer ko il faut ñu wax aussi li nga xam ne naqari na leen ah loolu yëpp nag suñ ko boolee ñu gis ne nguur gii fi nekk ñun juróom-ñeenti at a nii ci opposition la ñu nekk kuy opposé ci Macky Sall ñun ñoo la ci jiitu ndax man 2012 ba léegi je suis opposant loolu nag suñ ko dee def c'est pas pour bañ Macky Sall c'est pas aussi parce que dañoo dañ koy yàpp wala dara déedéet régime am wala doxalinam moom la ñu moom la ñuy décrier moom la ñuy dénoncé te li tax ñu di ko dénoncé aussi mooy que ni parti politique la ñu yor am projet politique comme ñoom gëm réew mi gis ne nii ñuy doxalee réew mi du dëgg du yoon ñu doon ko dénoncé saa su ne loolu nag buñ ci yegsee tey ñu toll ci tànn réew mi toll ci benn tourna ñu ne réew mi am na pétrole am na gaz Sénégal toll ci bunt boo xam ne sur le plan géopolitique dafa am beneen taxawaay bu ñu war a taxawee Sénégal toll ci bunt boo xam ne sur le plan national dañoo war a am ay njiit yu jub dañoo war a am ay njiit yu am responsabilité dañoo war a am njiit yu am maturité war a yor dëkk bi war a gérer dëkk bi ñu tànn nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk tey ay candidats yu war a jëm ci présidentielle ñun ñu war cee choisir xalaat ñan ñoo war a diriger askan bi ah, ñu jàpp ne. opposition bi nga xamante ne bii mooy opposition bu naturelle opposition bu radicale opposition bu boo xamante ne bii dafa fidel à ses convictions mooy opposition bi nga xam ne mooy opposition wu Diomaye 2024 mooy opposition wu Ousmane Sonko parce que depuis depuis ñoom ñu dugg ci politique ñi ngi ci opposition bi te mësuñu cee bouger d'un iota donc ñooñu seen opposition opposition bu ñu gëm la opposition bu dëgër la opposition bu am pas la li tax ma wax ko tamit mooy 2017 fidèle à nos convictions bi Ousmane Sonko nekkee candidat dañu dem jàppale ko ànd ak moom def ko benn député muy Philippe Clifford reste am plus de 300 3800 voix 3800 voix yooyu 900 voix yi man bokk naa ci ñi ko liggéey ak suma frère Daouda Thiam ak ñeneen ñoo xamante ne bi ñu ngi foon di jàppale Ousmane Sonko. kon tey ji kooku su nekkee benn député di xeex ba yegg si fii mu yegg si tey ñun suñu loxo ngi ci suñu alale ngi ci suñu temps mi ngi ci kooku nag tey su yàlla defee tey mu am taxawaay am jom am fulla am fulla parce que yàgg naa wax man ne bokk na ci nit ñi nga xam ne dañ leen a war a sargal ndax lan ñu war leen sargal du moom rek nag ñu bari la mooy que ni gis na ñuy saax saaxee alali réew mi mu dénoncé ko ñu dàq ko kooku fit moo koy def parce que inspecteur général des inspecteur euh, des impôts et domaines la yor ay dossier état gis ne pétrole Sénégal ñi ngi koy caxat-caxatee mu génn dénoncé ko ñu ubbil ko ci dossier dàq ko ci am na ci ñeneen juge dem démissionné na parce que moom it gis na ne nañuy doxe ci conseil supérieur de la magistrature jaaduwul mu bàyyi am na ci ñeneen am na yeneen commissaire am na yeneen doomu senegal yoo xamante ne bi tey dem nañ ci administration bi ak ci nguur gi ba gis ne nii ñuy doxale alali réew mi jaaduwul ñu génn ci bàyyi dem dugg ci leneen dugg ci làng gi di ko xeex ah, tey nag suñ ne tey MPES Jëf Njariñ lan moo waral mu war a choisir coalition Diomaye 2024 li tax ñu war ko choisir mooy dañoo bokk gis-gis seen programme bi liñ ci def lépp ak li nga xam ne mën naa ne ak quatre-vingt-dix pour cent vision wu MPES ak projet u MPES benn la donc ñenn ñi dañ ne ah léeg-léeg daa nga critiquer Pastef oui parce que ñun parti politique la ñu yore ni ñuy critiquer Benno Bokk Yaakaar ni ñuy critiquer noonu lañ daan critiquer ñeen ñi di critiquer ko def ci programme te ñun dañ ci d'accord dañu wax ne dooley président bi dañ koy wàññi. ndax lan président bi li tax mu doon buur nii doon bummi ba ku ko neex jàpp ku ko neex tëj ku ko neex dóor ku ko neex bàyyi dañoo jël doole jëpp ñu jëbbal ko ko mais suñ ko wàññi woon tey jël leen li jox premier ministre wala vis président jël leen li jox ko procureur jël leen li jox assemblée nationale kon dooley président du bari ba saa su ko neexee ku ko neex mu ne jàpp leen ku ko neex mu ne dóor leen donc loolu bokk na ci programme yi loo xamante ne bii ñun dañ ko gis bëgg ko jàpp ko ci leneen li ci topp muy ci wàllum santé relever le plateau médical bi nga xamante ne bi ci Sénégal ku ci na xam ne ne suñu hôpitaux yeeg centre de santé yi dañu nekk ci difficulté yu métti il faut ñu taxawu leen beneen bi ci topp mooy sur le plan de l' agriculture am réew bu amul mbay du autosuffisant am réew bu ñu bayul li ñuy dundee li ñu war a lekk ñu di ko bayee ci réew mi toujours ñu di ko jëgaani dañuy am problème presque ñaari junni milliards moom la ñuy jënd ci li ñuy lekk ci ay meew ay suukar ay diwlin ay na moom lañuy ñuy importer ci bitim réew mais ñaari junni milliards yooyu tey suñ ko defoon ci sunu mbay mi def ko ci suñu tool yi ñu bàyyi ko bu at mi bu at mi jeexee yaakaar naa ne dinañ bari loo xamante ne bi dootuñu ko jëndi kon agriculture lu fondamental la ci réew mi suñu ressources naturelles yi pétrole ak gaz génn ñu nekk la convoitise de la sous ñu di ñu surveiller mu am yu bari ñu war koo séddale séddale wu rafet. ndaxte Sénégal am na yoon fi ñu toll nii pour développer yoon bi mu am pour développer mooy bu ñu jëlee pétrole booba ak gaz bi ñu séddale ko séddalin woo xam ne ga euh, courant dina wàññeeku gaz wàññeeku euh, euh, carburant yi oto yi di utiliser wàññeeku dund wàññeeku loolu suñ ko utiliser ci yorin bu sell bi yaakaar naa ne loolu dinañ ko mën am te loolu yaakaar nañ ko aussi ci coalition Diomaye yaakaar nañ ko ci aussi ci projet projet bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko yore. bu ñu boolee yooyu yëpp nag ak yeneeni xalaat ci wàllu sport wàllu euh, culture wàllu art wàllu géopolitique géostratégie politique intérieure jàpp nañ ne ñun gis-gis bi nga xam ne moom la ci coalition Diomaye am doy nañu am nañ ci satisfaction te ñoo ngi wax ne à partir d'aujourd'hui di 13 mars ginnaaw bi ñu waxtaanee ak leaderu Diomaye président 2024 ay yooni yoon ginnaaw bi ñuy waxtaanee ak Ousmane Sonko depuis mois de mai ginnaaw bi ñu waxtaanee ak suñu waa parti waxtaan ak suñuy jagañaale ak suñuy waajur ak suñuy mbokk ñu ngi déclaré ne MPES jëf ak njariñ allié la ci coalition Diomaye 2024 fas yéene wuti ndam li incha allah ci élection yi di ñëw di ñaan nag yàlla li ñu jublu jëm ci ñu yegg ci ci jàmm def élection yi ci jàmm di ñaan yàlla nag. coalition Diomaye 2024 jël ndam li ngir politique yi ñu bëgg a soppi doxalin yi ñu bëgg soppi ci réew mi defin yu ñaaw ak jëfin yu ñaaw yii ñu bëgg a soppi ci réew mi ñu mën koo soppi teg fi dëgg loolu tamit moo tax ñu ànd ak ñoom ànd ñoo ñoom ngir seen bët yu rafet wala dara dañoo ànd ak ñoom ngir lii ñu wax ci programme bi wax ko ci projet wax ko ci gis-gis wax ko ci bëgg koo def ci réew mi bu ñu jëlee réew mi ñu appliqué ko loolu c'est fondamental ndax danga dégg nit ba tàyyi mu wax la programme bu wow rafet wax la xel mu rafet wax la yéene ju rafet falu def leneen loolu nag ñu ngi koy bàyyi xel di ñaan ñii nga xam ne aussi ñoom ñoo fi nekk tañ war a ànd ak ñoom di suñu ay nawle di suñu ay nattango lii nga xam ne moom la ñu waxanteeg ñoom ñun de suñu wàll dinañ ko remplir ba mu mat sëkk ñoom it ñu di leen ñaan bés bu ñu jëlee réew mi ak doxalin yu mënti doon ñun ñëpp ñoo koy ànd gaa mais ñoom ñi ko war a diriger politique yi ñu appliquer lii nga xam ne moom moo nekk ci programme bi jàpp naa ne bu ko defee Sénégal dana jóge ci jéego bii mu nekk avancé jëm fu sore sore sore sori waaw ñu ngi sant aussi nag waa parti MPES Jëf ak Njariñ moo xam ñi ne ci diaspora bi ñëpp ku ma ci lu ma bëgguma lim. mais ñooñu nag ak parti MPES Jëf ak Njariñ yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne ñoom ci seen bopp monsieur le maire ñoom ñoo porté combat bi. ñoom ñoo jël décision bi ànd ko ak man imposé ma ko xamal ma ne fii kat ginnaaw bi ñu seetee lépp ñun fii mooy sunu yoon ñii lañ bokkal gis-gis ñii lañ bokkal projet mooy coalition Diomaye 2024. maa ngi félicité aussi monsieur le maire Adiou bërki démb la def déclaration ànd ci coalition bi di ko xam ne ku ma naw la ànd nañ dem Allemagne ànd nit ki bala nga koo xamit ngeen ànd tukki. wala nga fekk ko barabam ñëw naa fa indi fa une mission allemande ci meereem ñu waxtaan fa xam pas-pasam xam bëgg-bëggam xam li mu yéene aussi Paatar mais aussi xam li mu yéene département bi yëpp kon monsieur le maire soo defee le déplacement tey jóge Paatar fii ba Kër Cheikh Ibra Fall si lii vraiment amuñu sa fay ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm maa ngi leen koy séeral yëpp yéen ñëpp di leen wax ne vraiment monsieur le maire Adiou seen ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam di fas yéene nag gën ko tàllal loxo ñu ànd ci liggéey bi. ñoo bokk liggéey bi ñoo ko nar a ànd joxante loxo mais en mais ngir indi victoire bi incha allah euh, au soir du 24 mars 2024 suñ borom jox coalition Diomaye 24 réew mi ngir ñu soppi doxalin yi fii ci Sénégal. ah di gërëm aussi vraiment soxna Ndeye Ndiaye ñëw fii ci turu Pastef. di nuyu à travers elle euh, monsieur Souleymane Ndiaye docteur jotonte nañ téléphone léegi woo na ma xamal ma ne su ko fekkoon njaareem dina fi teew di nuyu euh, Moussa Balla Fofana sama frère la woo na ma aussi ci bëccëg xamal ma ne les lundis et les mercredis daf koy fekk Dakar pour des raisons de professionnelles wante su ko fi fekkoon incha allah moom it dana toog mais il de tout cœur avec nous jot nañ ñu téléphone vraiment saafonteeg ñun ubbil ñu tamit yoon ubbil ñu mooy yaatal ñu xamal ñu ne vraiment and bi ñu nar a ànd liggéey ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo ngi leen ci sant aussi di leen ci félicité di nuyu aussi suñu frère Aliou Sène ak suñu frère Matar Sène jotaguñoo gisante waaye xaj na bu ñu demee ba ci kanam incha allah danañ gisante ngir liggéey bi gën a yaatu ñu xam ne ñëpp ñoo bokk lu ñuy def ñoo bokk objectif dañuy xàccandoo di dóorandoo ngir lii nga xam ne moo di victoire bi ñu soxla le 24 ñu mën ko ñu mën ko am loolu daal laa bëggoon a wax en résumé ah ñu ngi sant ñëpp vraiment di gërëm ñëpp. Euh, di leen wax ne euh, bis ni tey comme ni ma ko waxee sànq MPES jëf ak njariñ ànd na ak euh, coalition Diomaye 2024 pour liggéey pour le 24 mars incha allah suñu borom may ñu may ñu ndam ñoo ngi leen di sant di leen gërëm